salaamaaleykum mbokki xarit yi ñuy seetaan Pape Cheikh nuyu naa la di nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp comme ni ñu koy defee nag euh, saa su ne andil leen benn plat boo xamante ne ni dina leen mën a servir seen biir kër ngeen mën ko reprendre sans problème tey nag euh, benn cocktail laa andi ci weeru koor la ñu nekk ku ne xam na ñu weeru koor gi da ngay soxla plein de vitamines moo tax tey nag ma andi leen benn cocktail boo xam ne à base de fruits lay doon comme ni ngeen ko gisee nag am nañu banane am nañu clémentine am nañu poire melon mangue am nañ sucre vanille am nañ sucre normal fleur d'oranger nañ tamit nag euh, benn jus nature boo xamante ni moo ñuy permettre ñu mën a mixer nag euh, li nga xamante ni mooy suñu cocktail bu tey ci suñu benn rebo déjà nag duñu ñu def rek loolu rek jaajëfal suñu partenaires yi nga xamante ni ñoo ñu accompagner fii ci suñu biir waañ ku ci mel ne ardo mu nga xam ni booy caakri wala ngay laax moo ci gën déjà am na ardo euh, riz au lait am na ardo caakri am na ardo nag grand format bu 5 kilo bi nga xam ne moo baax ci tudd yi ak booy togg grande quantité ci laax wala ngay caakri bii bu 5 kilo bi am nañu aussi li nga xamante ni mooy ardo nature am nañu ardo càkkri bi nga xamante ni moom tamit ci sachet bi la nekk saa yoo soxlaa da ngay ñëw rek bënn rek daal di lekk sa càkkri mu neex ba dee ñu ànd aussi waa Sénico mi nga xamante ne ni nag ñooy yaa qualité garantie andil ñu huile jadida bi nga xamante ne ni dañ ko enrichir ak euh, vitamine A ñu defaree ko nag huile de soja am nañu chocolat Delia la délicieuse euh, mayonnaise jadida tout simplement le am mooy beurre margarita bi nga xam ne moom moo baax suñu euh, tartine ak cuisson yépp da ciy dem day dem suñu plat sucré comme salé ñu ànd aussi waa euh, NMA ñi nga xamante ne ni produit yi ñuy def yépp c'est 100 pour cent sénégalais ñu àndil ñu rek spaghetti coquillette euh, mu xam sax am nañu aussi macaroni am nañu rôli vermicelle bi nga xam ni grand format bi la am nañu coquillette rôli moom tamit sat bu 3 kilos bi moom booy xew wala ngay tudd wala ngay tuur moom moo ci gën ñu def nag lu préparation plat du jour tey bi Baye Cheikh gis ngeen nag euh, mbokk ya xarit di ñuy seetaan dagg nañu li nga xam ne mooy melon bi dagg màng bi dagg banaan bi li des nag moo ñu ñëw rek daal di koy def ci suñu benn mixeur rek mixé ko ci ak li nga xamante ne nii mooy euh, suñu jus de fruit bi nga xamante ne moom la am à côté suñu paree nag euh, moom xam nga déjà fruit yi ñu utiliser nii dafa am sucre mais nag bu la neexee mën nga ci rajouter de cuillères à soupe de sucre wala nga bàyyi ko noonu mu nature li ci des nag mooy da nga ciy rajouter juste rek boo bëggee fleur d'oranger wala wala essence vanille nga daal di ko ci rajouter mu nga xamante ne dina gën a relever li nga xamante ne mooy sa goût cocktail déjà bu la neexee tamit au lieu nga ciy def jus de fruit mën nga ko remplacer ak lait concentré non sucré nga def ko ci loolu tamit du ko ci yàq benn yoon dafay gën a euh, neexal li nga xamante ni mooy sa cocktail de fruit bi nga xamante ne ni moom nga bëgg a defar mën nañu ñëw rek rajouter ci suñu jus de fruit voilà moitié bi lañ ciy defar nga lii nag dafa xaw a compact dama ciy rajouté waat rek tuuti jus de fruit parce que dañuy soxla rek nga xamante ne nii mu mu léger parce que bu diisee nii mën na la euh, sonal su ko defee da ngay mixé waat tuuti rek. ko gisee nii nag suñu cocktail pare na mu simple ba dee riche en vitamine li des nag rek moo ñu ñëw daal jël suñu ñaari verre voilà lii rek ñu daal di mu naturel amul sucre amul dara mën nga ko jël à tout moment Pape Cheikh nag lii nag moo nekkoon nag cocktail de fruits bi nga xamante ne ni moom laa leen andil tey ñu defaree ko ay fruits yoo xamante ne ni dafa am plein de vitamines du ñu def rek ndul euh, rek jaajëfal suñu partenaire NMA Ardo ak waa Sénico ñi nga xamante ni bi ñu jàppee ba tey bàyyi wu ñu bàyyi seex boo xëdd àdduma demain incha allah.